فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتح وهب لي وارزقني بكن لنا دقياض عاجلا بالبشر مع مدد قد أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى واحمني وقني أذى الورى ولد طيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من شركه بانا أجب وصل بدثلي من على سندي محمد وتهب لي فائقا بانا أجب وصل بتسليم على سندي محمد وتهب لي فائقا بانا
ci war a ne Cheikh Abdourahman moomu kon ibnu Cheikh Abdou Abdou Khoudous ku am solo la sunu sunu sunu sunu jaxasoo moo ma joxoon weddu saasiliye moo ma joxoon weddu Moussa Bangat moo ma ko joxoon ne ne si Abdou Khoudous baayam maam Ceerno Sëñ Sëñ Tuubaa ku am solo la koo xam ne ne damay wax ne mooy mujjaddidu daara yi nga xam ne dafa raafoon te te sëñ Tuubaa sampoon ko moom moo ko yeesal loolu nag doy na teraanga ndax daara yi mooy daara yi sëñ sëñ maam Cerno maamam joojeek daara yi sëñ bi xabaar ak daara yi sëñ Abdourahmane Lo daara yi sang soose rek suñ bëkki busu ñoom ak ndoro si njaay ñoom daara yooyu sëñ Abdourahmane day mel ne moo leen wutu woon ci ci liggéey ba muy muy ko muy ko muy ko am solo lool koo xam ne abid la dëgg dëgg abid jàng jàng diine ba ba ba noppi nargan ca bakkanam dox ca du adduna dox dox doxit mu am mu am fulla yi nekk ca ci nekk ca loola loolu may na ko ca ca caaro yi gëm gëm gëm yàlla ba yàlla jaral ko léppam xam naa xam naa ab ab abid la tasawuf yi mi ngi ko doon dund kam talay kattanam xam naa waaye waaye nag day mel ne feq ji moo la la gënoon na jooyal gënoon gënoon kon notal ci ci ci ci ci dundam moom daal kaana wariyaan ku sàmm la woon ci lañ ci xam noonu ku ku sàmm la woon al wariyaan nag ku sàmm mooy koo xam ne day balu loo xam ne sax day araamut waaye ragal mu joo mu joo ko ci luñ sib kooku kooku mooy ku ku sàmm Cheikh Abdourahmane de moom ku ku sàmm la woon. soo ne ko jàkk sa xel du dem ci kuréel Cheikh Abdoul Khadir sa xel dem ci sëñ Bamba kon kooku kon moom kon moom moom la ci neex nag mooy doxinam woowu nag takkalufu ko sama baay daan takkalluf yàlla niw ci waaw waaw waaw sunu sunu sunu bàjjen boobu bàjjen Faama Jóob nga nga xam ne ne nday lay doon ci ci ci Cheikh Abdourahmane wax wax na ne na ne ba mu nekk ci ci ci këram ci këram googu foofee kër baay njëkk a jóg googu mu taxawal rek noonu la meloon cag raw kon moom kon yàlla ko bindi noonu rek mu doon am si Sëñ Abdul Xaadir alayhisalaam si rahma Sëñ Abdourahmane nag xam naa tasawuf ji mi ngi ko doon dund moo tax sax dana am sax ñu wax ne sax am na ko am na koy wax ne sax mas na koo gis diwaan diwaan maa fi bi laax xam xam naa nag léeg-léeg nga gis kuy kuy teewee diwaan ba noppi te du ko xam waaye mais mais mel na ne moom bokkoon na ci ci ci ñu fa daal teewee ko kon loolu kon kon mooy kon moom mi mi ngi dund kon tasawuf loolu mooy tuddee loolu ñu tuddee al irfaan donte ne nag feq bi nag la gën a jooyal moom. abid daal mel ne ne bàyyam bu tëdd ba si Sëñ Abdou Khoudous mel ne maam Thierno aljamu bayna alxaqiqati wa sharia doonte ne nag loolu yombut Sëñ Abdou Rahmane moom nag kon kon ñu ngi koy jaale ñëpp kon di ko jooy jooy xol waaye di sant yàlla ci ne dund ne dund na ba ba wàcc wàcc nag ba baat la bu bu bu foor a foor sama bàyyi dafa am ku ñu wax si si Moussa Jaxate ba ma dem fa nag 92 la woon bay dem mu ne ma da daa la boole ci sa sa sama werd waaye su ma fi bàyyi ko nag may ñaal kon kon ma ma ma ma ma ngi fàttalikoo su Moussa Jaxate tudd yàlla yàlla yàlla ko suñu bopp jotale sa sama baay bi bi ñëwee nettali ko mu daal di rek ne ne ma ah waaye ndaw wàcc keroog laa xam dëgg-dëgg wàcc bar bar bi lu lu lu lu muy peese kon mu wàcc na ndax day mel ne suñ suñu borom coono yi si si Abdourahmane doon jànkonteel da ko bëgg a noppal rek ne ko ne ko kaay nag ci ci nga ñëw ci xadara yu tëdd yi. noppalu féex ndax ginnaaw yow nit ñi nit ñi toppatoo wuñ la ku ne xam ne toppatoo wuñ ko moom lekk gaag naan gaag taxawaay lépp dañoo des na loolu des na nit ñi moom dañu naan dañu laa sopp rek ba force jàppale malaaka te fekk te fekk ne nit nga Cheikh Amadou Mourtada daan ko wax nit ñi nit ñi dañuy dem sax ba jàpp ne doo lekk doo naan te loolu lépp dara wéru ca da ngay lekk da ngay naan waaye ci waaye nag boo boo amoon donga boo xam ne dina ne da lay mën a saytul loola wala sox moo xam góor la moo xam jigéen saytul la la ngay lekk la ngay naan mooy tax jëmbu ji man fee ne. ruu moom moom moom mutlaq la mutlaqatun wala mutlaq la nga xamante ne moom daa booy matière téyu ko. waaye nag ruu mi mi ngi dunde ci matière ci lay dunde ci lay takka yuufe mën a jëflante ak waa adduna si si si Abdourahmane buñ saytu woon jëmm jëm mën naa am dana fi nekkaat ak noonu ba ci ca kanam waaye bañ ko sàgganee nag son son boom noppal ko loolu loolu loolu kon bind la ci ne ko kon noonu war nañoo fonkaat suñu yaakaar yi. ku mel ne Cheikh Mouhamadul Mountakha warees na ko toppatoo toppatoo toppatoo ko saytu dund ga ginnaaw dañoo am ci moom moom yaakaar saytu dund ga la muy lekk la muy naan li koy wër lépp ñu ñu ñu saytu ko ba ba yaram wi mën a wér mën a féex ci roog gi man mën a tong ca yaram wa loolu ko ci ci ci ci kon ñu ngi koy fàttali Cheikh Abdourahmane nag luñ ci mën a jàngate ku mel ne man loolu ci mën a jàngate mooy kooku de moom diine ngoog diine ak murit mooy diine diine dong mooy lislaam kese ak murit mooy Sëñ Abdu Xaadir kese ak murit mooy Sëñ Abdourahmane kese ay murit ak murit mooy doomi sëñ sëñ Bamba yàlla lañ nekkoon rek ak murit mooy la ahlu tarbiya suñ suñ tuwaay nekkoon kese mooy jaamu yàlla dong nag bañ bañ ko bokkale ak dara mooy sàmm kemtu lay kàttan waaw kenn ku nekk xam nga sa sa dayoo ci sàmm nga sàmm ca yaakaar sëñ bi yaakaar goo xam ne mooy bañ ko rusloo ëllëg bañ ko rusloo fii nu ne rusloo ko mooy nga ñu lay tudd di ko tudd nga nekk ci ci lu joonu loolu moo loolu moo yëfee na suñ suñ tubaab mën ne su ko rusloo waaye sa sa sa bopp yow ngay rusloo ca kanam góor yàlla ya am na sax noo xam ne sax koo doxee sax su bis pencee doo xam dafa sëñ ba nekk kon kon si si si Sëñ Abdourahmane kon mën nañ cee jàngee loolu jàngee ci ak way si si Sëñ Abdourahmane jamono ba mu toogee di di di di jàngale tey ab diir la te te te at kat bëriwul moom ay at yu bari toog na ko di jàngale way maanaam ay ay nattangoom di wuti ab dërëm di wër adduna bi moom moom moom mu toog rek. maa ngi dégg benn mbokk moo xam ne daa demoon xaw ma Gabon nga wax xaw ma ci ban ci réew yi di laaj addiya ba muy dem gars yi dajale xaalis bu bari ne ko ne ko xam nga si yëpp damaa mu ne waaw ñu ko ba demee joxal ñu ko ko sëñ booy moom daal di jaaxle lool daal ne man de li ma wër lépp la ma fa am tolluwut ak liñ ma jóbbante ci si si si si Abdourahmane daal di daal di waaru daal ne daal moom kon daa fas yéene toog loolu kon lu am solo la nga ne kon. ku ku toog ca tool ba suñu borom bu añ jotee suñ suñu borom moo la koy indil loolu ko kon kon si si Sëñ Abdourahmane kon mas na ko roy ci ci loolu toog nag ñu nekk ci liggéey ba ñii rek boo xoolee foofee ñu ko denc tey mooy kaana mamshaahu i- ilal masjidil fa mu doon doxali di dem ci jàkka ja foofa la lañ ko rob kon loolu loolu loolu kon day niroog suñ suñ suñ Mansuur si borom daara ji fa mu doon jàngalee alxu alxuraan xam-xam foofa la di di digli woon ne nañ ko fa rob muy muy muy kon seedeem ndax salaasalaama ne woon na képp ku ngeen gis mu mu muy dem ci jàkka ji na ngeen ko seedal ne ko aji gëm la kon sëñ Abdourahmane kon moom mu'min dëgg la ba sax kon foofee mu doon dox di dem ci jàkka ja tey jii foofu fa la tëdd kon kon jàkka jàkka ja kon moo doon ak dundam ba mu ba mu delloo ci ci ci ci ci yàlla it mooy barabu noppalu kaayam kon kon kon de xam naa kon sëñ Abdourahmane may si na cee jàngatewaat leneen mooy sell sell mooy nga fexe ba ba ba sa ba sa yaram wii du du dundee lu liwut su ko defee rek bakkan bi daal di set wicc bu seetee nag ruuga set bu seetee li ñu tuddee siru set su boobaa xam-xam yi su borom yeeg lépp mën a dal di fenkat ci xol ba su su boobaa dangay amuk dal wóor yàlla si si man ku ku ku wóor yàlla ku ko wóoru la ku ko doyloo la ku sopp sëñ Bàmba la ku ko wóoru la ku ku ko doyloo la waaw di di di dégg nga bandam boobu naan sëñ bi de ku la sopp laa ku noonu mu wax noonu daal ne ko yàlla xam na ko ma ne waaw loolu de mooy sëñ bi de ni ma la wóoloo ni ni ma la so soppe yàlla moo la koy jottali yàlla moo la koy jottali ne la kat Abdourahmane day ku la sopp la ku la wóolu la ku la bëgg la foofu tawxid dëgg la waxu rek ne naka sëñ Tuubaa xam nga ne nangam déedéet yàlla xam na ne sopp naa la xam-xam cofeel googu ma la sopp yàlla moo la koy digtal la ko digtalee nga ngay dégg ko kon yàlla na ko digtal sëñ Bàmba ne ko sa sa soppe ba kat tey ñibbisi na àjjana xam naa ko ci ci ci ci kon yit bokk na ci lañ ca ma mën a royee ci sëñ Abdourahmane mooy daara ya ñu xam ne sëñ Bàmba kat moom daara yi muy ab toolam alxuraan xam-xam moo di toolam ñu fexe waat ca delluwaat ku ku mel ne man de loolu dana dana dana ma jumbi daana wax ne ne ñett ñi de da da da ñeent laa doon wéttalikoo booba mu ngi wax jamono si njëriñ muxtaar la ma ne si njëriñ muxtaar maam an su ñang ak si sëñ Abdourahmane waaw ñett la woon loola loola dara wax daal daal na ñett day bëriwut boo seetloo ñett ñaar ña dem nañ kenn ci des maam an su ñang da nga dog nga ci des sëñ Abibu Mbàkke iman dara wax naan su su ma yëgee ne si servi woo ngi ci dëkk bi rek doy na ma dama koy wéttalikoo waaye mooy man sëñ Abdourahmane nga woon dara moti ma ne ma ne Touba wala Pataar yëgguma yëg ne mi ngi mi ngi fi rek ci kaw suuf dama daa wétali bu bu bu yónnee ci ci ci ci man nag ma ma ma gën a bég ma it su su ma gisee ku ku fa jëm noonu fan yii rek suñ xalilum suñu naar ko so ba mu nelawee maa ngi maa ngi maa ngi gis sëñ Abdou Khoudous doomam ja ñu dégg moom di di di ko wax naa ko. na nga wax sëñ Abdourahmane ne ko yóbbante yëpp agsi na waaw di di ko yóbbante ak ñaan ndegate ndegate te booba kon ma nga ci ma nga ca yoon wax sëñ Abdourahmane daal yaakaar naa kon am na ku fi ñëw ab dongam démb bu fi ñëw ma di ko dénk ne ko si si sëñ Abdourahmane day su ko ànd ak moom ba ba gisatoo ko na ngay def rek moom mooy ngooy calam nekkoon sëñ Mor Mbaye si dafa am. waaju dikk ci ci moom ne ko ba ne sëñ Sagan Fan moom moo doon sama sama sëriñ mu ne ko ah googu gaal di déqi na loo ci defutoon perte nga waaye léegi nag sëñ Abdourahmane moom léegi moom dem na waaye ma ne ma ne waa ji moom de ab ab ab jumla boo xamante ne joxañ nañu yàlla joxañ nañu jaamu yàlla joxañ na nañu wéetal yàlla kon ko kon nañ ci ne ba su bis pencee bu ñu dajeeg moom ne ko ah yow de bawoon nga nu àdduna waaye bay nañ ca tool ba sax loo xam ne moo ëpp lañ ca bayoon loolu lu ma nekk la bu dee su bu dee sun sun boobu toppatoo yàlla yàlla ñu ko toppatoo nga xam ne ne kon kon taalibe yeeg soppe yëpp ñu ngi leen koy jaale di leen wax ne kat Sëriñ Abdou Rahmane ndonoom la nag mooy loolu mooy mooy jaamu yàlla xam naa nag maa ngi ci yónnee ab bataaxel ci soppeem yi ñi leen soppe yi Sëriñ Abdou Rahmane yëpp de bu ñu mënee dajaloo ci gën buum daaraam yooyu ñu yoral ko ko ndax mu wéy daaraam yi rek moo ko fi bawoon daara ya ya wéy mi xasida yi yi mu doon bind ñu ñu gën koo koo tasaareel mool ko ndax yool ba man man man ko ko faa fekk doomam yàgg sëtam yéen ñu saytu leen suturaal leen aar leen ba ba nga xam ne kenn du digg ci ñoom luñ digg luñ digg tutoon ci seen baay ba di di leen di di leen wër di leen bàyyi bàyyiloo xel la ki ki ñu doon ku mu doon. ki ki wootu ko ki ki wootu ko kum doon loola ko kon lu am solo la so soppee ko man so soppe yi kon fu ñu mën di ne nañ daal di likkitoo ci ci genn buum taxawoo si Abdou Rahmane ji nga xamante ne liggéeyam ba bañ bañ a naax saay loolu nag loolu nag lu am solo la liggéey bu boo fa gis taarix man man taarixu ci ci réew mi wala taarixu murid bi moom man xam naa ci dara waaye dara yu bari fay na. naal yu bari naax na saay ndax doona yaa ko mbatiwut doona yee nag nag ñoom jublu ci ma ca doom yi rek ak sët yi ma ngi ci jublu soppe ya ñu ñu ñooy wane ne dañoo gëm kooka ñoom képp ñoo war a taxaw loola allazina amanu foo ko fekk wa amilu saalihaati lay doon ku gëm dara da nga koy jëfee jëfee wu gën kon nag soppe yi maa ngi leen di woo bu baax a baax ci ngeen taxawaat si Sëriñ Abdou Rahmane tey jii ka ka la soxla woo kooka taxaw ci liggéey bi. gën a kon sëñ bi moom sëñ bi moom moom si moom si sëñ bu Xudóos ak sëñ Modou Kara seen seen xalifa ñu ngi leen koy seere bu baax a baax. waaw di di xam naa li ñu doon wax lépp ci ci ndénkaan yeeg fàttaliwaat doon Abdou Rahmane yi sa sa sa njiit sa njiit yi moom kon kon laa koy teg ci loxoom waaw nu ñuy fexee rek ba magam ju baax jooju ba naalam ya du nax saay buñ ko defee kat sa njiit kat loolu bu amee da nga indi da nga indi xàll wu yees lool. ci yoon wi ku ñëw ku nekk saytul ka ko ji jiitu woon ndonoom bu ñu xoolee taarixu yoon wi lu ci ëpp ku fi jógee rek sa mbir yampa loola nag nag ndono yaa kon kon kon sa sa sa njiit yi li kon mi kon suñ wëru du karaa it kon mi ngoog seen seen rakk ja seen mag ja kooka kooka def na la mën ca tool ba kooka kon nag yéene ko la sëñ Thierno Fall waxoon ne ko xalifa si si si munaar ba ku fi des dese ko ko kon nag yéen a fi des dese leen ko soxna Auto